ñaari dimanche yele mawduuxaat yi ñu doon waxtaane mooy mbirum diggante borom kër ak soxnaam diggante soxna ak borom këram waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal milieu bu nekk am na luñ fa war a wax béréb bu ne am na luñ fa war a wax <clears throat> loolu moo tax sunu tomb tey ñu bëgg waxtaane benn mawduux benn tomb bu ñuy tuddee coronavirus li arab yi di tuddee attaahuun wala ñu naan alwaba te langa su suñ jamono jii tuddee ko coronavirus li tubaab bi di tuddee épidémie ñuy feebar boo xam ni yàlla da koy indi par ay jamono bu ñëwee dajale jamono kap waabale leen léeg-léeg suñu borom diko dogal ca dogalam ya ca benn jam, bi ci man dara mu bëgg wax wax ñu l'islam ci feebar bu mel nonu ñu feebar bu mel ni ñi wax coronavirus nga xamni ni ay antivirus xëy nañ waxtaane ko ca mudu waxtaan wa virus bo gis amna antivirus su borom daa bis tudd jàll bi mu indee addina daf noo waxoon ni addina bi dama koo aménacé ba mu nekk lu seen bu ma sañoon nag bu ngeen fa demee du ngeen ko tilimal du ngeen ko taqal du ngeen ko lëndëmal ba malaaka yi sax contesté woon ko ni ko yaa rabbi ni ma xamee doomu aadama wallahi boo ko yóbboo addina dana fa tuur deret dana fa fen dana fa noggutu ko ma man ëpp ko doole te du ko teg fen suñ borom ni waaye nag inni axlamu maa laa ta'lamuun d'accord naa li ngeen wax sax am na ci waaye xam naa ci moom nag bu ngeen xamul ci moom mooy am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ay nit ñu sincère lañu nit ñu seen lañ bu ñu demee buñ fa nekkee dara lu dul jàmm li tax ma bind leen rabbi situwa jàll jalaaluhu xalaxanaa wa mawlaanaa léegi nag suñu borom biñu ñu ñun ñu def contraire ba moy yaq su ba suuf al fasad fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nas yalla ni kon nak du dañ di leen nat may ngir ngeen may bayyi xel di delu ci borom jalla wax ci bu tedd bu mag bi ni wala nablawannakum bi shay'in min al xawfi wal ju' wa naqsi min al amwal wal anfus wa samarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المؤتدون سورة بقرة رب ست وجل suñ borom nee na duma deñ di leen nattu ci li ñu tudde alxawf coronavirus boo xam ne bu dikkee day tiital nañ waa jamono alxawfu duma deñ di leen teg di wàcc ci yéen ay malade ay maladie ay feebar ay tawat yoo xam ne bu dikkee daf leen di tiital yóbbu seenu fit ndax bu boobaa dana laal économie ba dana laal bakkan ya dana dana dana dana wal juux dana laal xiif ba danaa leen ci nattu wa naqs min al amwal loolu mooy dana laal dana laal économie bi mooy dana yàq économie bi dana ko wàññi dana ko mm, repousser ila axirihi wal anfusi dana ray ay bakkan wa samarat dana accrasé mbolam meññant yi nga xamni ni nii dangeen ko daan jëfëndiko sun borom ni loolu duma dañ mukk di leen ko am waaye kat tawat yoo xam ne da leen di tiital yóbbu seenu fit da leen di jural sax ngeen dem ba dootu leen am lu ngeen lekk dana leen jural sax ngeen dem ba économie bi daanu dana leen jural sax ngeen dem ba mu ray bakkan yi dul jeex ay mili mili mili mili bakkan wa samarat gàncax gi lépp essuyé du ngeen am lu ngeen récolté waaye nag chance bi fii la nekk mooy yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaam mi ni leen bis bu ma leen tegee tawat ju mel nii su boobaa ña nga xam ni delloo nañ seen bopp ci seen borom ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow Muhammad na nga ma bégalal sama jaam ñooñee wa bassiri wa bassiri saabirina allazina ida asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàllaa nu moom kat ay jaamam lañ lu ko neex teg ñu ko kon nag borom bi yaa nu moom yaa nu bind yaa nu fi indi buñ fi jógee ci yow la ñuy dellu kon nag ñun ñëpp nañ ànd waxandoo ni xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sallallahu wa sallam amoon na benn soxna Abu Sufyaan bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na koo denc fekk sallallahu alayhi wa sallam daf ko ni santal yàlla ti mun yàlla man na laa jox ku gën Abu Sufyaan boo waxee baat yi ma lay wax soxna si ni ko ah ku gën Abu Sufyaan minti milliardaire boobu doonoon suma borom kër nga xam ne lim fu ma joxul mu dagg kooku moom mënatuma am ku nu mel ku ko gën moom mënatuma ko am yonent bi ne ko waxal baat yi ma lay wax rek yàlla jox la lu ko gën mu ko yan baat la mu ne ko neel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba mu ba tënjam jeex ba nga xamante ni iddaam jeex na sallallahu alayhi wa dem labat ko kawaru yonent bi sallallahu alayhi moo gën Abu Sufyaan kawaru yonent bi laa moo gën Abu Sufyaan kon nag ñëpp nañ ànd ni suñu borom xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla yaa nu yaa nu bind lu ngay jëfandikoo ci ñun say lañ rek suñu borom nee na yonent bi waxal ma sama jaam ñun nga xam ne nangu nañ ni man natt bi maa ko fi indi maa ko fi ma a jëlee mun nañ ko it ngir yàlla waxal ma leen ñee leen natt bi nag du musiba ci ñoom a ah, natt bi du musiba ci ñun te wàññi économie bi rey ay bakkan indil ñu xiif nga ni du musiba mu ni déedéet salawaatun min rabbihim barke la teraanga la ju bàyyi ko ci seen borom wa ma ak yërmande yéen ñi nangu ne natt bi ci man yàlla la jógee maa leen ko teg yéen ñi reconnaître loolu natt bi du doon musiba ci yéen de déedéet yéen natt bi teraanga lay doon ci yéen ak barke benn nga dee ci dem àjjana directement wala nga mucc ca suñ borom defal la tuyaabay ku sahit ci lislaam wala ku dee dem àjjana te fekk yaa dese nga leneen di dund ci kaw suuf ginnaaw nangu nga ni natt bi yàlla ak indi nga mun ko te yàlla tax rabbi sit wa jalla jalaaluhu loolu mu nga sóoratu baqara suñu borom nee na rabbi situ jàlla wa maa yaxlamu junuuda rabbika ila huwa wa maa hiya ila zikra lil bashar nga suuratul mubashir suñu borom nee na rabbi situ sama soldaar yi ma amee di leen am waaye ci addina bi réew mu ma bëgg ñu bombardé ko ñu bombardé ko mu ne kenn xamut nu ñu toll kenn xamu ko lu dul yàlla man yàlla mi moom soldaar yooyu rek maa ko xam wa maa yaxlamu junuuda rabbika ila huwa soldaar yi sa borom yi kenn xamuleen ku moom am na soldaar yu tudd mbott am na soldaar yu tudd teeñ am na soldaar yu tudd weñ am na soldaar tudd am na soldaar yu tudd jaan am na soldaar yu tudd am na deret am na am na am na soldaaram soosu kenn kenn xamu ko ku dul moom rabbi sutwa na benn nitu yàlla bu mag bu jóg ni day recensé wàll ba xam nuñ toll bu ñëwee ci borom bitig bi ni ko jaay ma ab kaye xam nga néew ko damay recensé wàllu yi de moom ci wàllu la bokk ba noppi nag ñu daa bëgg a recensé wàllu yi yàlla yi ci borom bitig bi ni jaay ma ab kaye borom bi jaay ko kaye ba noppi ni ko nag ba def ma ci bopp bi ginnaaw da nga leen di recensé def ma ci bopp bi ah xoolal kooku mu nga ca bitigam jaay waaye mi ngi bokk ci wàllu yàlla yi nga xam ni waa ji cim xelam rek la def ni man damaa bëgg a recensé wàllu yàlla yi dem di jënd kaye ki ko jaay kaye bi ni ko def def nga may première bind ma ci bopp bi mu daal di koy bind ci bopp bi jël ab kayam waaxu wuti këram romb benn waay bu taxani woon sayu matam bay ñibbisi ni ko eh tollanti ma waay def ma may ñaareel bi kon wama yaxlamu junuudu rabbika ila huwa wama yaxlamu junuudu rabbika ila huwa lu waaye borom nag nee wama hiya ila dhikra lil bashar kon atahun muy coronavirus bi ñuy wax coronavirus bii ñuy wax moom la ñu tuddee ak ci arab wala bu la neexee nga ne alwaba mooy épidémie soldaaru suñ borom suñ borom yabal ci réew yi ci addina bi ci jaamam ñi moom moo ko fi yabal képp moo ko fi mën a jëlee am na nag ay sabab yu war a def ñun ñu fi ne ndax li kulli shay'in lahu sababun xëy na xëy na ma yegg ci yonent bi sallallahu alayhi daa wax ci addis ba nee innaha saa taa'un rijusun sulita ala man kaana qablakum aw ala bani israil fa isa kaana bi ardi fala taxrujo minha firaran minhu wa isa kaana bi ardi fala tadxuluha sallallahu alayhi wa sallam daa wax ci bi nee na loolu boo demee ci say u muslim da ko gis addis boobu mu wax mi ngi ci say u muslim sallallahu alayhi wa sallam mbas mii gis innaha saa taa'un mbas mii ngeen gis épidémie bii ngeen gis ñu ne ko ah mu ni rëjusun musiba la balaa la feebar la tawat la juy wàlle mu ni waaw mu ni sulita ala man kaana qablakum wa ala bani israil aw ala bani israil mu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen gisee épidémie musiba la balaa la mu ni suñ borom naka jekk daana ko yónnee ñi fi jiitu woon ni waaw mu ni noonu la ko daan yónnee bani israil bandi yooyu waa bani israil dawul dañ mukk di leen ko yónnee mbas moomule ñoom waa bànni israil suñ borom mësta dañ di leen yónnee kaaxuun di leen yónnee épidémie ñoom bànni israil sallallahu alayhi wasallam ni saa boo gisee lu mel noonu rek xamal ni desitu mbugalum bànni israil la ñu waaw mu ni képp kenn ci yéen ku gëm yàlla bu yàlla dogalee mu nekk ci am réew ba mbas moomu wàcc fa mu ne amul ah, bu mu génn réew ma bu mu génn réew ma képp ku nekk cim réew ba mbas moomu ñëw fa mu ne génn réew ma tànk mbas moomu arrêté wul tànk mbas moomu jeexul ñu ne ko waaw mu ne képp koo xam ne nii doon na bëgg a dem cim réew dégg ne mbasa nga na wàññi ko bu dem alayhi salaatu wasalaam képp ku mu dégg ni mbasa nga fa mu ne na wàññi ko bu mu dem yow mi nga xam ne mbas ma fa la fekk mu a ah mu ne bul génn dëkk ba même bu la naroon fekk wayaase na nga ko fomb bul génn dëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wa moo nu ko jàngal de moo ko jàngal moo tax toujours wax naa ko ci xutba bi ma doon def ci jumaa ji ma amul dara loo xam ne médecin yaa ngi ñu koy wax lu ñu ne fekk na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ko ca ësal waxoon nañu ko ca ësal waaw waxoon nañu ko ca ësal li ñuy tuddee quarantaine quarantaine mooy li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mooy nit ku am tawat te dinaa ko wax ci kanam nit ko am tawat wër te déplacé di dem fenn tànk tawatam jooju wërul tànk tawatam jooju wërul sallallahu alayhi wa sallam ni képp kenn ci yéen ku ne ci réew mbas dugg fa épidémie dugg fa bu leen génn réew ma tànk du mbas moomu épidémie boobu dafa jeex yow mu bëgg a dem ci réew dégg ne am na épidémie bu fa sa tànk jaar tànk déggoo ni épidémie ba dafa jeex waaw ñun sallallahu alayhi wa ñuy gëm wala boog jamono lañuy gëm wala boog orientaliste yi la ñuy gëm wala boog tubaab yi la gëm ñun jullit ñi kon nañ seetaat suñu bopp kan lañ war a gëm yow mi ne cim réew tawat am fa sallallahu alayhi wa sallam la boo nekkatee cim réew bu fa tawat awat tawat amee na nga toog ci réew ma lu tax nga bàyyi wax yonent bi sallallahu alayhi wa di def leneen foo koy teg lu tax nga bàyyi fi wax yonent bi di def leneen nga ne ci réew dégg ni meneen réew tawata nga fa nga bàyyi fa nga nga nga nga nga nga nga dem ci réew ma bàyyi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni bul dem nga ne ko dinaa dem dinaa ko wax ci kanam mënu ni sallallahu alayhi wa na mbugal yooyu mësta dañ yàlla di ko yónnee ban Israël ban Israël dañuy nit ñu dëng ñu jubadi ñu mën a tooñ ñoo jamono wante yoon ak yam yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam Moussa alayhi salaam ndëngital bànni Israël tax na woona leen guddi woo leen bëccëg ndax ñoom dañoo gëm ni ñooy Sabulayil Muxtaar peuple bi yàlla élire ñoom loolu lañ gëm nee nañ ñoom ñooy peuple bi yàlla élire ew waaye ndaw lañ gëm ba nawlawuñ kenn nawlawuñ kenn mbañite gu nekk ñu ni ko def ci kaw suuf ñun ñooñu nag ci jamono yent yàlla Moussa alayhi salaam bu musa Moussa orienté ci dëggug yàlla gi ñu lankal ko suñ borom daf leen a commencé di leen yónnee ay épidémie épidémie par épidémie ay soldar par soldar moom la ñu alquran di misaal fa arsalna alayhim tuufaana wal jarada wal qumala wa dafaadia wa damma wa ayatin wa ayatin mufasalatin fastakbaru wa kaanu xawman mujrimin fa arsalna alayhim tuufaana wal jarada wal qumala wa dafaadiya wa damma ayatin mufassalatin wastakbaru wala boog fastakbaru wa kaanu xawman mujrimin loolu ñu nga suuratul ahraaf borom dane fa arsalna alimu tuufaana man yónnee naa ñi ci yont yàlla Muusaa ya benn benn épidémie benn taawun benn mbas ay soldaar mu soldaar yi ma jëkk a yónnee mooy aljaraad lan njéeré yi dañuy def nitu Moussa yi ku taal sab añ njéeré ñu fees del ciñ la ku tang ndox taaj njéeré fees del ku tang bëgg naan pat ba re fees ko del ah ñu def délégation ñu ci fer aw na mi doonoon seen njit tay katch ni mom yalla la nan ana rabbukumul ahla ñu ni ko yow yalla nga mun wa mun waxal ci li mu dañ fer aw na mi leen may do tuuti rek bu guddé dana ko wax mu dañ ci guddi mu roccu ndànk moom Daawda do ci yent yalla musa musa la bekk mu ni ko ñaanal suñu borom mu dindi li gis nga bu ko dindé ma ngi lay waatal ni mag bani Israël yépp ñu la gëm top la musa talal yalla loxo ñaan suñu borom dindi mbassma ya dem Firawna lank moog bani Israël wal qumala suñu borom yonne len ay teñ boo tax nga ndox bëgg naan ni ci nga duy sa bërigo teen ya fees ko del ñu muluk sa ci teen fess ko del ñu ci firawna yow waxal ci ni mu dañ mu naaw yaa yàlla mu may leen ma rek dina ci wax mu dañ ak guddi jot mu rocc ko wat dalaat dem ci yent yalla musa musa ñaanu sa borom mu dindi li wallahi bi yon mom su ko dindé dana tuub and ak bànni Israël ñepp ñun ñepp dina leen digal ñu gëm la musa ni ya ko wax de mu ni waaw musa ñaan su borom dindi raw lank sun borom delu yónni benen beneen mbas wa dafa di af ay mbott lu way def rek mbott ni ca cabax lu way def mbott ni ca cabax ni demati ci fir'auna fir'auna rocci ti ñak jom demati ci yonti yàlla musa kon ñu ngi koy gisee ci suñu politiciens yi bu ñu dañe ba ci gude ci guy ñu ñu yam ni guddi ñu ci serigne daara yi ca bu seen aja fajo ñu japp serigne daara yi di tëj di tuumaal di fitnal ñu xam ci musa alayhi salam musa ñaan ba tay mbott ya dem wa damm suñu borom yone len deret ku tang ndox bëgg naan lepp doon deret ku mulug sa ci lepp doon deret sun borom neena ayatin mufassalat mu xolal ma yi épidémie yépp ma yónnee leen ñu ngand ngandlu di reey ak ponkal lu. ñu ne yéen yéenay nit ñi gën a bandi wa kaanoo xawman mujrimin yéenay nit ñi gën a bandi ci kaw suuf xoolal fi ñu toll ci jamono fi ñu toll ci jamono xool ko jamonoy assulluma jamonoy tooñ du bëkki démboo njaay la benn waaye jël fitalam fekk ñuy julli jumaa mu roose leen ñëpp bañ tooy xib rey ca mbooloo mu dul jeex ba ñëpp di filmer boppam ah ba ñëpp ni dañu bëgg yàlla bàyyi adina bi ñoom ñu nekk ci seen olala ana fi barki démb lañ ko tër ni ko deqet ren di ray ko ana Mohamed mursid ñu ni démocrate la wax mu ñu def ay élection mu gagné démocratement bu mu gagné démocratement bu noppi ñu. Euh, ñu coup d'état ko lëkkaloog américain yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy yahood yi coup d'état ci kaso di ko gumba xotaal ba mu xëy dee ah, ñu ni dañoo bëgg a nekk ci seen olala ñu ni dañoo bëgg a nekk ci seen olala ana jullit ñu nekk ind lañuy ñuy daj xoolal jullit ñi nekk Siin la ñuy daj ñoom nee nañ seen diine da leen a tere sàngara tere leen mbaam xuux ñuy leen for force te di leen punir fi barab ku ci mar ñu tàng sàngara jox la ku xiif ñu jël yàpp mbaam jox la ba noppi ñun dañoo ma a bëgg a nekk ci seen olala ñoom siin gee tey siin ga nga xam ne fa la tawat ji tàmbalee waaye ku leen ko wax xam ngeen ni da leen di nax de ku leen ko xam ngeen ni leen di nax Palestine ñi nii Israël jàpp ko di ko noggatu di nangu ay suufam benn kuréel boo xam ni benn kuréel boo xam ni minorité la minorité sëgg ci kaw majorité di ko noggutu guddeeg bëccëg soldaaru addina baa ngi nii muy Amérique ni ci patt patteeral réew mu intérêt nekk mu rey président ba mbaa mu coup d'état ko ba noppi ni dañu ne bëgg a nekk ci seen olala aca ñëwal ci suñu réew mii di Sénégal njaay senegal njaay gii góor jigéen ñaa ngi ni ni xas ñi dem àlli dof góor jigéen ñaa ngi ni ni xas ñi dem àlli dof gaañaa ngi nii di woote ak yonant ba jigéen ñi di woote ak yonant fen rek Sénégal fii ñu toll léegi daanaka nekk fi góor jigéen moo ëpp sécurité nekk fi ab sëriñ daara gi ñu nekk ñu yegg ci nekk góor jigéen moo ëpp sécurité nga nekk fi ab sëriñ daara ah ba noppi ngeen ni dañu ne bëgg a nekk ci aafiya nekk ci seen olola xam ngeen ni ku leen ko wax nax na leen de wallahi seedallahu nodd gaa ngi noonu ku leen ko wax nax na leen ku leen ko wax nax na leen da ah, daa na musée bi ñëwee mom ñu bax ñang ñu ban ñu lay boole rek waaye ñu ban ñi rek fi indi musée bi de sun borom nee wa taqo fitnatan la tusibanna lasina salamu minkum khashsha lo rek ñu ci yóbbaale lo rek ñu ci yóbbaale demal arabi saudi ulama yi borom xam-xam yu mag yi ñi nga xam dañuy wax liñ gëm te dëgg ñoom ñëpp nga ca ya. arabi saudi gi ash-shahudiyya ulama yi ci ëpp ñi nga ca ah ba noppi ngeen ni da ngeen a bëgg a nekk ci adduna bi di dund ci seen olala yàlla du leen fitnaal yàlla du yóbbu seenu fit yàlla du daane économie bi xam ngeen ni da ngeen di naxee ku leen ko wax nax na leen ku leen ko wax na leen Sénégal ñu ni mbirum lacc benn waaye jóg ñu yonant laa xam nga ni ki demoon aji màkka mu naan <clears throat> ñu gis ko ca arafa mu naan man maa taw loo yàlla ma arafa maa tax mu taw te Sénégal gi mu jógee booba ñu ngi bëgg a deeg bekkoor yàlla ji tawut kooku ba mu ne cëpp aéroport nuñ ko war a def <clears throat> ngeen baal ma ñu hmm? wutal yàlla ndend di wutal yàlla nawle di fen rek ñi naan ku ma gis texe kàcci kese kàcci kese ba lépp ñu nopp waale ko bu noppi rek ñi dañoo bëgg a nekk ci seen ah, ñoom ñoo ëpp fayda yàlla ñoom ñoo ëpp fayda yàlla waa bànni Israël la ñu nii ba ñu dem ba ñu mandee ci caay-caay فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا خم المجرمين ينن رواية رجعنا فاستكبروا القرآن جنونكو ولا ما وقع ولا ما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى أدخلنا ربك بما حيد عندك bi leen musiba mi dalee Firawna mooy rocc ko guddi dem ca Moussa ni ko Moussa ñaanal sa borom mu dindi lii gis su ko dindee faraas daal di xëjal bu soob yàlla kay ñun ñëpp danañ la topp yooyu sa ndigal mooy comme ni ñu politique yi politiciens yi dañuy def rek ñu ñëw yi di leen nax rek suñu borom nee na inna lasina fatanu al muminina wal muminaat suma lam yatuuba fa lahum asaabu jaanam wa lahum asaabul aryam suratu buruj ñi nga xam ne dañuy fitnaal julli gëm yàlla ñi di pratiquer sen diine di jaar fa leen yàlla sant suñ borom nee na ñooñu wallahi buñ gaawul tuub man yàlla kenn mënta teema du leen kenn mënta teema toroxal leen kenn mënta teema toroxal leen kon nag coronavirus natt la bu yàlla indi mbas la mu yàlla indi taaxuun la alwaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis yi wax ci mel non kenn xamul mu toll sayyidina aisha nee na radiyallahu anhu amata laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waaw lan moy akahun nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ma innahu azabun yabasu allahu ala man yasha wa inna la aj'alahu rahmatan lil mu'minin ila akhir al hadis bo demé batay sahih Bukhari ding ko gis bo demé ci sahih Bukhari di gis hadis bo ma wax sallallahu alayhi wasallam suñu gis naa Aysa nee na dama koo laaj ni ko waaw yow ki yàlla yónni ana lan mooy épidémie lan mooy taaxun ne mu ne ko mbugalum yàlla la mu ñuy am waaye lenn ci ay jaamam lenn ci ay réewam lenn ci ay réew mu ni waaw mu ni waaye nag bu dee ci ab julit bu dee ci ab julit yërmande la ci moom ñun ñëpp bu ñu jàng fiq gis nañ ko booy jàng fiq fiq dalay wax ni bokk na ci képp koo xam ne nii ab jullit la te faatu ci jamonoy taaxun muy jamonoy mbas moom dafa saxit àjjana la jëm kenn du ko laaj ci bàmmeel dafa saxit moo tax yonent wax sayyidatuna Aysa fii ni ko bépp épidémie boo gis bépp euh, coronavirus boo gis ñu naa mu ni ko rahmatan lil mu'minin yërmande bu dee ab jullit bu dee yëfar na musiba la ci moom mbugal le ci moom waaye bu dee ab jullit mu naa mu ni rahmatan lil mu'minin moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca bay jeex mu ne képp koo xam ne dégg na ne am réew mbasa nga fa fa yamkus fi baladihi saabiran muqtasiban ya'lamu annahu laa yasibuhu ila ma kataba laaw la ila kaana lahu misla ajri saxiib boo demee ci saxiihul Buxaari di nga gis addis boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kenn ci yéen ku ne cim réew ba épidémie tàbbi ci réew ma mu naa ah, mu jàpp ci yàlla te na xam ni na xam ni bu fekkee ne aw na am am na dara ci tawxiid na xam ni musiba moomee fa yàlla indi mbas moomee fa yàlla indi dara du ko ca laal lu la yàlla namoon mu laal ko ca yaalamu annahu laa yusibahu ila ma kataba laahu la dara du ko ca laal lu la yàlla namoon ni dana ko ci laal rek mu ni te loola kat bu ko ca laalee ila kaana lahu misla ajri sahid bu ko ca yàlla dogalee mbas ma laal ko ba mu jé ca bakkan bu faatu nee na mokku sahid ci lislaam nekk badar bi xeex bañ rey la yéen a tolloo daraja kon jullit amul pertement kon jullit amul pertement képp koo xam ne yàlla dogal na ni sëb cëre nga ca mbas moomee nee na ba mu laal la nee na yow moom boo ca faatoo sahid nga ci lislaam hadis bi wér la mu ngi ci a lu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne ko waxal ma gaañi nii leen xul lan yusibana ila ma kataballaahu lana huwa mawlaana wa alalay fale tawakkalul muminuun suratu tawba ñeen ni ñi nii leen amul benn jaam benn jaam buy dukkat ci kaw suuf loo xam ne dara dana ko laal te du man yàlla maa nam ni lii ko laal dara dana ko jot lul ne man maa ya man yàlla maa nam ni lii ko jot mu ne yàlla moom mooy suñu kilifa ci moom lañ wóoru ñun way gëm ñi wa alalaay fal yatawakkalil muminuun ab julit ci yàllaay yàllaay delluwaayam ci yàlla la war a wéeru yàlla wéeru waayam ab julit laa wax nag yàllaay wéeru waayam kon nag bu yàlla dogalee nga ne ci réew loola fekk la fa su boobaa yonent bi nee na saabiran mu'tasiba muñal ca toog dara du la ca laal lu yàlla namoon na ko ràbb si tuba jàll léegi kon mu des nag ginnaaw bu yàlla dogalee li muy dogal ba noppi nag nga ne ci am réew musiba mel noonu am fa yow ma nekk ci meneen réew nga dégg ni musiba am na ca meneenum réew léegi yéen ñooñu lu leen war mooy fagaru wolof njaay nee na fagaru moo gën faju wolof njaay dellu waxaat beneen baat bu ruus mu ni xoddiku ca ba nga lëkkalee lislaam dalaa jox ñaari possibilité yëpp lislaam may na la nga def sabab yi ndax daw dee taxut a mucc ci dee waaye sabab la ci mucc ci dee <laughs> danaa ko wax ci palaasam sax loolu duma ko waxagul danaa ko wax ci palaasam suñu borom daa ci alxuraan ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu kenn ci yéen bu kenn ci yéen gis musiba gis musiba mu waaxu jëm ca bu kenn ci yeen gis musiba mu waaxu jëm ca musiba mu ko mën a alak mu waaxu jëm ca bu fekkee da ngay jaay ngëm ñu ne la barab ba ñuy defee daayira day da caa am ñu amee tawat bi wàlle ngay jaay ngëm ba waaxu jëm ca boo ca dee da ngaa xaru boo gëmee sooy wanee ngëm ba tax nga dox jëm ca daayira boobu ñun la daayira booba dañoo amee tawat ji wàlle nga waaxu jëm ca dama boo ca dee da ngaa xaru booboo ci jëkk fii nga dégg ni tawat am na fa bu fa tànk tege wala boo fa demee rek boo ca dee da ngaa xaru boo beneen bi ci des mooy yow mi amee tawat ji yow mi amee tawat ji amatuloo droit dem daayira ba tànk sa tawat jooju daawir amatuloo droit dem julli ca jumaa ja tànka du sa tawat jooju daa wér wala boo fa demee kooka wàll bu ca faatoo bakkan ba yaa ko gàddu yow mu yëg ni am nga tawat ji te ñee nañ la tawat ji day wàlle ba noppi na nga xam ko ba noppi au lieu nga dem toog def quarantaine sa bopp même bu la état deful quarantaine nga def quarantaine sa bopp ndax yonent bi moo la ko digal au lieu nga toog sa kër di faju waaye nga dem ni da ngay dem ca daayira ba for force ndax di jaayu ngëm wala da ngay dem ca jumaa ja for force ndax di jaayu ngëm wala da ngay dem ca màggal ga for force ndax di jaayu ngëm wallahi kooko fa wàll bu dee yaa gàddu bakkan bi li may wax man alquran la de man sama yoon ci état sama yoon ci lu neexub sëriñ xam nga lu ma xam li yàlla ak yonent bi wax te muy dëgg sama yoon ci état man li yàlla wax yonent bi wax ko te muy dëgg loolu moo ma concerné loolu laay wax di ko wax fi sabilillahi taala nag waxuma ko ngir kenn rabbi si tuba jàll dama koy wax rek ngir jëm yàlla subhanahu wa taala yow mi tawat ji dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne képp kenn ci ko tawat mu naa mun na tànkam bu mu dem di seeti ku wér bul ko seeti bu dee tawat joo xam nag du wàlle ah kay moom mën na laa seet si hôpital wala mu seet si la sa kër mais tawat bi wàlle mu ne yow mi ko am yow moom bul seeti kenn yow bul seeti kenn <clears throat> ñooñu daa bokk ci lii tax tawat ji gën a gaaw a tasaaroo <clears throat> muy li ñu tuddee intiqaalul marad wala intisaarul marad wala intisaarul euh, jaraasim jaraasim mooy microbe yi bu fekkee ni ñu wax ñoom médecin yi dañu ni bokk na ci lii tax mu gën a gaaw a tasaaroo mooy almusafaa xam nga sallallahu alayhi wa sallam nee na ci addis ba wa min tamaami taaya al afsu bi yaddi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena na na ci matu nuyo joxante loxo alxuraan ni la sa bo demé nag ba yëg ni léegi joxante loxo man na la wàll febar wala tulxoo bi aydikum ila tahluka ndax nuyo du joxante loxo sunna ci nuyo moy assalamu alaykum farata ci nuyo moy wa alaykum assalam wa rahmatullah faqat amul joxante loxo kon bu la l'islam ne ah moment bi ñu tollu day ñi jàng ilmu tibbi mooy médecine nee nañu joxante loxo mën naa bokk ci yëpp luy tuxal jaraasim mooy microbe yi bokk na bokk na ci li koy intisaar su boobaa loo war a def téye sa loxo te wax asalaamaaleykum alquran la di alquran la wala tulqoo bi aydikum ila tahluka alquran la alquran la ginnaaw bi nga gëmee yàlla ba noppi nag da ngay def sabab yi li kulli shay'in lahu sababun wax naa ko léegi moo di ah, da ngaa am doom mu ne mu ni dencal soxna xam nga am am am soxna taxut am doom ñaataa denc ay soxna te amuñuy doom waaye sabab la ca rek sabab dong la ca lu tax suñ borom balaa taw xiin bu neexoon taw ba wala ngante du xiin waaye sabab la ci rek balaa taw xiin lu tax nit buñ daggee boppam mu dee sabab la ca waaye dagg bopp tawut a dee de waaw kay nag léegi waa ji nga xam ni moom it dafa tawat sabab la ci moom mu dem seeti médecin bi wóor na ko ni pikir bi ko médecin bi di pikir bu fekkee ni am na ngëm am tawxiid xam na ni pikir bi fajul dara yàllaay faj waaye yàlla mën na koo jaarale ci pikir bi xam na ni comprimé bi muy naan fajul dara yàllaay faj waaye yàlla mën na koo cee jaarale ci comprimé bi loolu mooy sabab xam na ni daw dee taxut a mucc ci dee dégg ni coronavirus am na barab sàngam tax nga di ko daw taxu caa mucc waaye nag sabab la ci mucc ndax alquran dani qul inna al mawta lasi tafiruuna minhu fa innahu mulaaxikum yéen a ngi nii di daw dee mu naa mu ne nga sampee saw xel ba yaakaar ni fii dee niwu fa ba nga toogee ni juun mu naa mu ne dee ngi ci sa kanam kon loo ciy dawati kon loo ciy dawati yow mi dégg ni coronavirus am na fii bam tax la samp saw xel ñu senegal mu na mu ne ñu ah, senegal fekk fi dee moom mu jongoro di la xaar bu na ni da ngay dee kenn mun laa tee dee waaye sabab la nak ci li ñu fagaru fagaru sun borom neena rabbi sitwa jall ayna ma takunu yudrikumul maut Walau kuntum fi burujin musayyada min nga nisa sun borom neena bu ngeen wutoon grâce yi gëna kawé montagne yi gën a rëy ngeen dem làqu fa ngir bañ a dee mu ne mun a fala la dee di fekk luqali la rey la te kenn du ci man dara booboo ci jëkk beneen bi alxuraan dellu waxaat ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xul law kuntum fi buyootikum la barasa lasina kutiba aleykumul qatlu ila madaajiha ñeel gaañu buñ demoon tëdd seen lal banku sangoo téeméeri junniy mbàjji dee ñëw fekk leen ci seen kaw lal fekk dugg ca biir mbàjji ma rey te kenn du ci man dara alquran la waaye loolu lépp nag sari asantul nag muy sabab lu nag lu ñuy tax a mucc ci dee xam nañ ni dee kenn mënu raw waaye alxuraan yi waaw sabab lu li mu ci tax a mucc nag ñu ne lu mel nan xam nga ni posan ku ko naan dee naan posan toxut a dee am na ñu naan posan te deewuñu waaye sabab la ci gaaw a dee de sabab la ci gaaw a dee kon bu ko naan fi am na ñu naan posan te deewuñu dara jotu leen. waye nan posen sabab la ci gawa de posen de xecci de bo warana de 8h40 nga nan posen une heure de matin bala 5h et demi nga fatu du la bàyyi ba 8h40 fekk sa dig 8h40 la waye ya xecci dig bi ba 5h30 demi fekk sa dig 8h40 la woon waaye yaa xëcc dig bi ci sababu nan gi nga nan posen ba 5h30 demi kon da ngay jëm ni yàllaay saafara yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu salaam waxoon na ko nee na woon wa isaa marittu wa huwa yasfii nii man ibrahima bu ma feebaree yàlla may faj wallahi ku feebarit yàllaa lay faj xanaa euh, médecins yi dañ cee dugal seen loxo yàlla jaarale ko ci rek waaye ku feebar boo wéree yàlla wa isaa marittu wa huwa yasfii nii man ibrahima bu ma feebaree yàllaa may faj ñu waaw mu ni wa la si suma yu ii yàlla moom it kat bu ma fiy dund mooma bu ma dee mooma yàlla moomu su ma dundee mooma su ma dee mooma kat feebar bi rëyu ma yàlla ma rey akay dëgg tawxiid dëgg ngi noonu wallahi tawxiid dëgg ngi noonu mhm. waaw dox ba day baayam dafa faatu ñu teg ko fi barab di ko waajal mu ñëw ne ana baay ñu ni baay faatu na muy daa ko bëgg a gis ñu ni ah dox bi mu a daw mu ne waaye wan leen ma bàyyi xanaa li ma dofa tax na mu leen mu ko wan mu ne ah wax na waxi nit kat nañ ko wan baayam mu waaxu wan ko baayam mu daal di ñëw muri mbalaan mi xool ko góos xool droite daal ni cay lii de wóoluwuma ci yàlla moom ci yàlla de ma ne ko keneen ku di yawit di keneen ku di am nga loolu du gii wóoluwuma ci yàlla ma ne ko keneen ku dul yawit kat keneen ku dul yow kon nag nit bu feebare shari am may na ko mu def sababi dem faju ji waye du dar ram ci wér loolu kat hadith mo nu ko jàngal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo demé ci sayyid abu daud da ko gis sallallahu alaihi wasallam da wax hadith bani da wax hadith bani ba ni te daawaw fa inna allah asa wa jalla lam yadda daan ila wada alah dawaa gayra daain wahid alxaramu aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam dani maa ngi leen di digal képp kenn ci yéen ku feebar na faju ji mu ndax yàlla wàccewul ci kaw suuf jenn jenn jàngoro lu yàlla wàcc ne la koy faj ba noppi door a wàcce ji amul jenn jàngoro ji wàcc ci kaw suuf xam nga ñu ngi naan coronavirus kenn xamagul lu koy faj waaye dañ koo xamagul waaye yàlla wàcce na ko bu yàgg mu ne amul jenn jàngoro ju yàlla di wàcc ci kaw suuf benn épidémie lu dul yàlla ba ko daatan wàcce daa wàcce la koy faj ba noppi xam nga yàlla balaa bind dund dee la jëkk a bind lii tax nga am li tax do am ñu la jëk bindi ba noppi ñu la fi jëlé lool la yalla jëk bindi ba pare mu ne ak amul jenn tawat jenn tawat ju yalla di wacc ci kaw suuf lu ni na la koy faj ba noppi ali sallatu wasalam mu ne ah xana bam dess jenn tawat jenn tawat dong la gis yalla wacc ko ci kaw suuf te wàccewut lu koy safara ñu ne ko lool la mu ni magat magat faral di wax tuba bi ñett rek leen ci adina ñett moy ruu mun ñu ci dara ba ba ñuy dee duñ defar ruu ba ba ñuy dee duñ defar ruu boobu ci jëkk beneen bi mooy faj màggat gis nga ñoom muy danañ ko def ngir bañ a màggat pikiroog dagg aw suux def fa weneen suux ak noddanti fu nuux waaye màggat rek baras pëcc màggat baras pëcc rek mhm. màggat baras pëcc bu ñaareel bi mooy dee feebar dee ay ca ku ko mën a faj kaay ba ba ñuy dee tawati dee kenn mënu koo faj yonent bi ni yii jàngoram moom yàlla wàcciwul saafaraam mhm, wàcciwul saafaraam bi waaw waaw sabab la ci faju yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ñaa dégg ko ci wax waaye li wér mooy li muy bëgg dafa tawat mu tawatee mu jàmbat ko suñu borom suñu feebar suñu borom ko waaw dana nga dagg sa garanaat gële lekk ko wér Moussa alayhi salaam dem dagg sa garanaat ga lekk wér nga xamee ni wér na ñu toogaat diir bu yàgg tawat ji dellu siwaat dalaat ko mu waaxul boppam dem ca garanaat ba dagg lekk tawat ji gën a yokk ñu ne ah suñ borom ñu doon man tawat naa mu yebal ma ci garanaat bi ma dagg ko wér sama ñaareel tawat ma dagg ca tawat di gën yokk suñu borom ni ko waaw bu jëkk da ngaa amoon ndigal te bii amoon ndigal bu njëkk da ngaa amoon sama ndigal waaye bii amoon ndigal garanaat bi di wéralaate man maay wéralaate ah sëñ Tuubaa wax na ko laa tafaloo bi xayri isni fal isni sartun bi xaboolu saxni ni taala anhu naa ko faral di misaal ci diggante Adama alayhi salaam ak soxnaam sa sayyidatuna Hawa bi nga xamante ni sayyidatuna Hawa ah, day eh, julli ba yàgg mu gis baax mu ni eh, borom këram boobu di yonent alayhi salaam sayidina Adama waaw nu may def mu ni ko ah xaaral ma laaj ko suñu borom mu laaj suñu borom suñu borom ni ko nee ko day bàyyi julli gi ba set doog a julliwaat bu ko defee ne fan yam julliwul woon baal naa ko ko du ko fay baal naa ko ko du ko fay moo tax jigéen bu see baax waxtu julli yi muy faat du ko fay ah ñu dugg ci weeru koor Adama alayhi salaam soxnaam Xawaa gis baax. mu ñëw ni ko ah man de gis naa baax nu may def mu ne ko loolu koy jurul laaj na nga defoon ci julli ga rek da ngay doo fay yàlla ni ko ah bu fekkee yow yaay commanditaire bi ah léegi yow yaay dogal waaye léegi nag day dog ba noppi ba baax bi set bu noppee nag mu fay nag kon laa taf aloo bi xayri isni fal isni sartun bi xaboo li saxam Moussa alayhi salaam ñenn ñi dañuy dafa romb garab ga garab ga ni ko boo ma naanee boo ma jambee naan wér garab day wéri laate bay wax Moussa boo ma jëmbee naan wér déedéet Moussa dafa jàmbat suñu borom tawatam suñu borom ko daggal ci garanaat bi lekk mu dagg lekk wér mu tawataat même tawat jooju mu dikk daggal boppam mu tawat da yokk lu tax lu xëyri isini lu nag jullit bi yoon da koo sant mu def lu ñu tuddee prévation lislaam xam na ko danaa ko wax ci kanam moom moo di d' accord réew mi nga nekk tawat jaa ngi fi waaye milieu bi nga ne milieu bi nga ne tawat ji ak ak seegu fi kon nag bul nangoo dem ci benn milieu boo xam ne boo ko fréquenté tawat jaa nga fa mu wàll la ko moo xam daayira la moo xam jumaaja jala moo xam moo xam foo xam ne xam nga ne tawat jaa nga fa boo demee man nga ko faa jëlee bul fa dem boo ko defee def nga li la yonent bi sant de alayhi salaatu wasalaam Seydina Omar radiallahu taala anhu mu nekk ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf sidna ñaari version la ñeen ñi dañ ne moom ci boppam moo jiite armée bi di dem saam ñeen ñi déedéet dafa yónnee armée buy dem buy dem saam armée boobu bi mu demee bu jub saam ñu jot benn xibaar benn journaliste xamal leen ni ah dëkk bi ngeen jëm day am na épidémie bu fi ne boo xam ne day wàlle armée bi daal di campé ni kon nag nañ yónnee ndaw ci Omar radiallahu taala anhu bu yónnee si ci ndaw ñu ko ah, ñu ko dañuy jub saam armée bi nga yebaloon léegi nag dañu faa dégg ni am na épidémie bu fa am Seydina Omar def li ko alquran wax wa saawir um fil amr alquran dañu bala ngeen a jël décision nu ngeen ci diisoo ba noppi Seydina Omar daal di woo kibaaru saxaaba yi fekk woon yowma badrin ñu dajaloo mun leen xibaar baa ngi nii léegi lu ci pexe nag ñoom dañuy continuer dem dugg ci épidémie ba wala dañuy wàññiku ñenn ñi ni ah nañ dem dogalub yàlla kenn mënuñ ci dara ñenn ñi ni déedéet nañ wàññiku Seydina Omar xam ngeen ko sallallahu alayhi wa sallam nee na wallahi bu fekkee am na ci sama xëy di ñoo xam ne yàlla da leen di ilham da leen di déey mu ne mu ne Omar fa minhum Omar ca la bokk sama xeet bu amee ñam ñoo xam ne yàlla dañu leen di déy di wax ak ñoom mu ne Omar ca la bokk de bu nga xamee nag d'accorduñ ci benn kàddu Omar jël décision fa isa asamta fa tawakal alallah ñun ñëpp ko jàng wa um fil amri waaye nag fa isa asamta fa tawakal alallah alquran la na ngay diisoo boo diisoo ba pare nag jëlal sa décision mu jël décision yi na armée bi wàññiku am na ku ñuy wax Abu Ubayda Amir ibnu Jara xam ngeen ko histoire am jàng nañ ko mo rayon bayam te yalla diko féliciter lutax parce que bay ba yeufeur la ray sa bay ba nupp yalla di féliciter abu ta amir ibn jarrah dal ni omar wow, yow omar tafiru min qadrillah ah yow omar legi da ngay daw dogalub yalla omar ni ko waw waw afirru min qadrillah ila qadrillah damay daw dogalu yalla bi jëm ci benen dogalu yalla ba ca dess moy daw na dogalu yalla bañu dugg ci febar bi dal di jëm fee feebar bi amul kon moom feebaragul te nekku fa loolu la Omar wax ah sahaba yi dal di commencé takk seeni bagage fekk booba am na ku ñu wax Abdourahman ibnu Awf xam ngeen ko moom tamit nit ci sahaba yi ci baaru sahaba la bokk ni ko mag ko ko jàmbaare te ragal yàlla Abdourahman ibnu Awf fekk dafa booba mu ne ci gannaaw arme bi ñenn ñi dafa demoon faji aajoom waaye bi mu dellu see dégg coow li rumeur bi mu ne waaw lu ngeen di wax ñu ne ah Omar kat nee na ñu wàññiku ndax dëkk bi mu jëm réew mañ jëm dafa am épidémie bu fa am abdourahman ni la illa man de man mas naa dégg ci saa nopp bii man abdourahman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni isa samihtum bihi bi ard fala tuqaddimu alayhi wa isaa waqaa bi ard wa antum biha fala tuxruju firaaran minhu allahu akbar abdourahman ibn awfu ni man de maa dégg ci sama nopp bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni képp kenn ci yéen ku jëm ci réew ba dégg ne épidémie am na fa épidémie am na fa mbas am na fa balaa am na fa mu naa mu ne ni kóot wàññiku fala tuqaddimu alayhi bu mu dugg ca moom réew bu fa teg tànkam mu ne waaw mu ne maa dégg ci saa bi mu ne képp ku nekk ci réew ba mbas fekk ko fa bu mu génn réew ma Abdurahman ibnu Awf moo nettali lii mu ne loolu maa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi dafa bokk ci li ñuy tuddee al wiqaaya xam nga arab yi dañuy faral di wax ne al wiqaayatu xayru min al xilaaj maanaam fagaru moo gën faju fagaru xoddiku bala ngaa lakkale xoddiku ba nga bala ngaa lakkale loolu arab yi ko wax mooy bul wax ni rek bu may yàlla bu yàlla naree mu dal ma damay dana ma dal kon naa dem déedéet déedéet da ngay fagaru ginnaaw tawat ji wàlle la ñëpp d'accord ci ni day wàlle te nu muy wàllante day doon lu gaaw day doon lu gaaw xam ngeen ni sëñ Tuubaa wax na ci jëwhër nee na tawat tawat xamul yonant xamul wàlliw tawat xamul yonant xamul wàlliw déedéet laysa ahad maxsuuman min al marad la wax boo demee ci buntu fiqul islaamiya dañ lay jàngal sax ñu la buntu buntu ko tawat ñu ñuy julé dañ ko wara jang ndax tawat kenn ñu ci mucc du yonant du malaaka du walli eh, du yonant du walli ah, du yonant du walli kenn ñu ci mucc ci ñom ñaata yon lañ jang ci alquran yonant yo xam dañu tawat ba diko jambal yalla alayhi alayhim tawat ba diko jambal yalla ko ku weddi nga laaj ko yonent yàlla ayoba alayhi salam mhm. kon nag loolu sëñ ko wax ni laysa ahad masuman min al marad kenn mënu cee ci tawat kon nag bul jaay ngëm wala ngay jaay fit wu ba ni ah bu ma demee lu ci yàlla nar dogal waaw ah waaye nag bu boobaa mu la ca dal ba nga faatu rek yaa ko xaru yéen a yem kon noo war a def mooy quarantaine sa bopp ni ko yonent waxee mooy dégg ni barab sàngam tawat am na fa toogal ba tawat ja dem sariya fi mu yoonale dégg tawat daw ko bañ caa dem moo di yonent bi sallallahu alayhi wa dafa toog nii ak saxaaba yi ngeen baal ma ci misaal mi ba yàgg mu séen gaana guy ñëw gaana comme ni nga xam ne noonu la ko addis bi nettee mu ni mu ni atta majsuumun ila majlisi rasulillahi sallallahu alayhi wa fa xaala anas mu ni fa xaala anas isnil bisaata isnil bisaata laa yetta an alayhi bi xaddami moom mu ni dafa toog ak saxaaba yi nii ba yàgg gaana guy ñëw na mu ni sayidna anas xam ngeen moo nekkoon bëkki ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa anas limal basan gi limal basan gi gaaw bala cee gaana gee joggi limal gi bala cee gaana gee joggi isnil bisaata laa yetta a alayhi bi xaddamihi fa xaala mu daal di wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni firu min al majsuum firaarakum min al asad bu ngeen gisatee gaana nu ngeen koy tawati gaana nu ngeen ko daw mu ngeen di dawee gaynde yonent bi ko wax de alayhi salaatu wasalaam bu ngeen gisatee tawati gaana nu ngeen ko daw nu ngeen di dawee gaynde du maanaa loo fi mën a déggee du caagi nu gaana gi ci bopp mais tawat ji loo ciy déggee mooy jëpp tawat ji wàlle boo gisee ko ko yor na ko moytandiku jëpp tawat yi wàll rek soo gisee ku ko am na nga moytu ni ko tawat ja ba bum la ko wàll bum la ko wàll loolu boo ko defee def nga loolu lislaam sant dara nekku ci dara ñaaw ci comme lislaam moo ko santaane gisuma ci lu ñaaw gisuma ci lu ñaaw kon nag prévention bi mooy alwiqaaya mooy loolu mooy da ngay jëkk a moytu d'abord da ngay jëkk a moytu beneen bi ci des nag enseignement yi nga xam ni euh, ñu jàng ilmu tib bi joxe nañ ko muy médecine docteur yi l'islam moo ñu ko jëkk a jàngal pourquoi pas ñu toog ba nëga ni docteur yi di ñu ko doog a jàngal yonent bi yàlla yónni moo ñu ko jëkk a jàngal mooy lan mooy attahaara set lat alquran nee na wa yunasilu alaykum min assamaa maan liyutairukum bihi wa yusib ankum rijisa saytaan mu ni moom suñ borom nga ca sur anfal ñun yàlla noo leen wàcceel am ndox mun ndox mi xam nga lu tax ma wàcceel leen ko lii ta'irukum bihi ngir ngeen man cee laabe mu ndax ndox kat wa yushiba ankum rijsa seytaan ndox day dàq épidémie ndox day dàq microbe ndox day dàq jarasim ndox day dindi microbe yi nga xam ne ni microbe yooyu nga xam ni mu ngi sosoo di bàyyi ko ci saytaane aaya bi bi muy wàcce yow ma badrin la woon booba saxaaba yi am na ci ñoom ñoo xam ne keroog badar dañoo euh, jaxasoog seeni soxna ci guddi ji te bu ñu xëyee amuñu ndox mu ñu war a sangoo moo tax nit bu jaxasoog soxnaam war na fexe ba balaa lekk dara ci loxo wala mu laal dara ci loxoom li jëm ci gémmiñam mu sangu ba pare yàlla taw ca guddi ga ca euh, suba sa ñoom ñëpp ñu daal di cay sangu ba set suñu borom ni maa leen wàcceel ndox ngir ngeen mën ceelaabe boobu benn la boobu benn la ci yoo xam ni jullit bi war na koo waajale boppam beneen bi ci des mooy ay jumtukaayam ndab yi muy jëfandikoo muy set ba noppi muy ub aw ñamam loolu it kat yonent bee ko jëkk a jàngale damay faral di wax ni euh, médecin yi bu fekkonte ne dañoo amee li ñuy tuddee honnêteté intellectuelle ou saa bu ñu waxee yii danañ cité yonent bi ndax bi ko yonent bi di wax ay seekali seekali seekal la ba nga ni ñoom ñu koy soog di wax ay seekali seekal kon bu ñu amoon honnêteté intellectuelle faa saa bu ñu ko waxee danañ cité yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam moo ne xatul inaa wa awkihoo siqaa fa inna fi sannati laylatan yatanasalu fiiha al wabaa lay marru bi inahi laysa allahi qita'a wa siqa laysa allahi wikahu ila waqa fihi min salika da aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dali ngi ndi upp sen ndabi ni waw ni ngi ndi tak sen ndokh mi bam ndax boba xam ko mu nek musu ndokh wax ni nan wala sambrayer bu yaqku nga ko moom lañ daan tuddee defe naa wir na nga xam ne danga nga ci sol ndox mi noonu léegi day am benn buntu nag sallallahu alayhi ñu ngeen di takk seen bunti ndox yi ñu ne waaw mu def ñam na ngeen ko ut moom yonent bi sallallahu menn at moo xam ni gudul ni at moomee am na ca guddi goo xam ne yàlla dana wàcce mbas dana wàcce balaa dana wàcce épidémie mu ne épidémie boobee mbas moomee balaa boobee amul lenn ndab lu muy romb te ubbuñu ko lu dul ne balaa ba dana wàcc ca ndab la doog a jàll amul benn bërigo wala lenn ndaa wala benn defukaayu ndox bu ñuy romb te ubbiñu ko lu dul ni balaa ba dana wàcc ca ndox moomee soog a jàll a ah loolu yonent bi moo ñu ko jàngal médecin moom la ñuy expliqué waat ko wax ak waxaat rek ñun jàng nañ ko bu yàgg sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bu yàgg kon bokk na ci prévention yi muy alwiqaaya mooy euh, fagaru mooy fexe ba ndab yi nga di ko ub defikaay ñam yépp nga di ko ub fexe ba tey muy set fexey ba tey muy set ndax jarasim muy microbe daf ci am yoo xam ni horoscope rek moo ko mën a gis horoscope rek moo ko mën a gis ginnaaw xam nga loolu nag su boobaa ci loolu nga war a jëkk tàmbalee bu dee ci wàllu set bañu ko alquran di sant kañ la sun borom lu wax ci alquranul karim inna allaha yuhibbu tawabin

bobu ci jëkk wa bi ci dess mu ne man yalla nak dama bëgg ñi nga xamne dañoo porop nit ñu porop ñi man yalla dama leena bëgg wa yuhibbul mutatahirin nit ku porop nit ku set nit ko xamne foko tol foko fekk day set mu man yalla dama ko bëgg torop yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba inna hasa din bu nee àlla nasaafa diine ji sun diine ji yalla ng ko tabax ci kaw set inna hasa din bu ñu yee allah nasaafa suñ diine ji ci kaw set la ko yàlla tabax moo tax ñun la del jàpp juróomi yoon par bis loxo jàpp juróom yoon par bis ni ñu amee jaraasim alquran lu mu wax yaa ayyuha allazina amanu isaa xumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq te suratul maida ila axiril aaya yéen jullit ñi yéen jullit ñi képp kenn ci yéen ku jóg jëm ci waxtu julli bu mën a doon mu ne mu ne na dem raxasu jàpp raxas xar kanamam raxas ay loxoom raxasi tànkam pourtant yooyu alquran tudd nañ ko raxas yooyu mooy bunt yi nga xam ni mooy jël jaraasim mooy jël euh, microbe muy loxo yi ndax nee nañu bokk na ci li koy taxawale mooy nit ki téye benn obse mooy jàpp loxoom fi barab fekk loxoom dafa am jaraasim nga ñëw téye fa muy microbe bu ko def mu wàll la ko wa ilaa moom ci boppam mu bëlbëli wala mu sëqët wala mu tisli am lu bàyyi ci gémmiñam laal la moo xam air la moo xam aw lor la yëpp mën na la ko wàll buntu yooyu nga xam ni tey moom lañ wax ni ci la jaraam si jaraasim bi di jaar microbe bi di ci jaar di wàll ñeneen buntu yooyu yonent bi ne la sallallahu alayhi wa ak alquran ñu la waxtu julli wu nekk na ko raxas waxtu julli wu nekk na ko raxas kon nag boobu mooy aspect bu jëkk bi moom ngay jëkke mooy set d'abord moom ngay jëkke ndax tawat yu nek dafa am sahir am batin. lepp lo gis dafa am sahir am batin. Sahir bi moy set bo tawate dem seeti docteur faju ba xam lu ci yalla di def <clears throat> koku moy sahir bi batin bi ci dess nyan moy ñaan ñaan ñaan nag dalaay faral di wax ni amut lu mënut <clears throat> Nyan dal ma <clears throat> ñaan amut lu mënut ñaan dal keroog bam fekke ko xamni du yonent mu def ko yonent keroog la ñaan noppeetile dara ñaan mo fekk ko xani du yonent mu def ko yonent kërok la ñaan noppeetale dara mani ñaan mo fekk ko xani du walliw mu def ko walliw kërok la ñaan noppeetale dara moo tax sallallahu alayhi wasallam ni addu'a silaul mu'min ñaan mooy ngannaayu julit ñaan mooy julit kon nak da ngay boole set ak ñaan solution man na am de solution man na am de jëlee nañ ci anas ibnu malik in <coughs> bal ma mun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu allahuma inni auusu min wa min sayyi al asqaam nee na sallallahu alayhi wa sallam daawul di ñaan naan suñu borom yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tawati ndoxum siti musal ma ci tawati ndof muy ku jinne sadd musal ma ci tawati ngaana musal ma ci xeeti tawat yépp anas nee na ibnu malik sallallahu alayhi daawul dañ di ñaan ñaan googu yàlla yàlla na mu musal ci ndoxum siti yàlla na mu musal ci saddum jinne ak ndof yàlla na mu musal ci tawati ngaana waaye yàlla na mu musal daal ci mboolem asqaam yi te mooy mboolem tawat yëpp rek far nan mu ci musal nan mu ci musal sëñ Tuubaa lu mu wax ca xasidaam nga xamdan li munsili dana wa daa i wa sifaa i wa dawaa من امر العباد بدعاء ليضفه به عن البلاء سمع الله من اي مسس مرب يقرب بلا بدء فاس بالقرب تدرج كان محمد طبيبنا الحكيم اسكا سلام ربنا الكريم عليه الصلاه والسلام دنا موي لان دنا خم نين دنا دي دنا موي تاوتي سونو بورون سون جامونو بي دنا موي سيدا موي تاوت دي كين خمود لو فاج لولو موي دنا مو مام سيني توبا ميغي نيان يالا ميغي خاني moo wàcce tawat joo xam ne kenn xamut lu koy faj ni mu wàccee tawat joo xam ne xamees na lu koy faj xam nga sibiru dem nañ ba turoo lu koy faj yàlla wàccee ñaari tawat yëpp tawat ji kenn xamut lu koy faj jeen ak moom xam nañ lu koy faj mun moom mi ngi sant yàlla mi wàcce ñaari tawat yëpp mun waaw mun waaye tamit yàlla mi wàcce ñaari tawat yooyu moo wàcce ñaari saafara yëpp it bu ci ne am na lu koy saafara am na boo xam ne kenn xamut lu koy faj ah kay soo ñaanee yàlla nangu mën naa wér wa munsili sifa wa dawaa sifa ak dawaa xam nga du benn ñaar yooyu bu ci ne saafara lay firi de waaye ñaari saafara yi duñ benn mhm. léeg nga jënd garab ñaari garab yu nuroo waaye lañuy ñuy saafara bokkuñu de moo tax mu ni wa munsili sifa wa dawa ñaari saafara yooyu duñ benn mu ni yàlla mi nga xam ni amaral ibaada bi doi mooy digal jaam ñi ni leen dee leen ma ñaan bu ngeen gisatee lu leen jaaxal dee ma ñaan bu ngeen gisatee lu leen jaaxal dee leen ma ñaan lu yàlla wax suñu yonent bi sa alayhi wasallam waxal sama jaam ñi nee leen buñ ma dee laaj nee leen man yàlla maa ngi sus rëkk ci ñoom seen buum gi téye seen xol bi nga xam ne buum gi téye sa xol sidit gi téye sa xol bu daggoon ga faatu buum googu yàlla yàlla nee na maa la ko gën a jege bul waxal sama jaam ñi ne leen buumu xol gii téye seen xol maa leen ko gën a jege buñ ma soxlaa nañ ma laaj buñ ma laajee ma jox leen isa saxalaka ibaadi anni xaribun sëñ Tuubaa ni yàlla moom nga xam ne moo digal jaamam ni nii nañ koy ñaan liyadfahu bi anil balaa mu ngir mu dañal leen balaa yëpp dàqal balaa yëpp dàqal leen balaa yëpp kon nag ñu ñaan suñu borom ñu nit rabbi sit wa jàll jalaaluhu xalaxanaa moolaana fi jot a ci kaamil wàcce ko ci ci alquranul karim ci xasida yi sëñ yi ay limi lim lu mel matlabu shifa lu mel ni wakaan xaqan alayna nasrul muminin lu mel ni lahum lu mel rabbi bima asrun las fajaha yooyu yëpp yàlla na ko nangu ngën gi nangu te ful ko ngën gi ful barkeel ko ngën gi te musal ci tawat ji musal ci bi rawatina Sénégal bi nga xam ne ñun moom la ñu bokk waaye rawatina doomi sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ak fu a ne waaye rawatina nag ñi nga xam ni ay doomi sénégalais lañ bu nupp nag amak ak àllaaxa daara ihyaa diin te yàlla rek tax ñun ñëpp dëxañ leen leen ci ñaan googee yàlla ñu leen ci yàlla aar yàlla ñu leen ci yàlla musal yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla aar leen yàlla na yàlla musal leen ci balaa boobile te saa borom jëlee ko fi wa maa saalik ala laahi bi aziiz innaka ala kulli shay'in ma ko waxee nag ci ñu jot jokk jokkoog man du samay wax wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sallam Ousmane ibnu afan moo ko nettali Ousmane ibnu afan nee na bi sallallahu alaihi wasallam sallam kep ko xamni sa bo xeye da nga wax ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi sayun fil ardi wala fis samaa wa huwa samiun alim ñetti yon sallallahu alaihi wasallam sallam kep ko ko wax yalla dula tek teg mukk mukk mukk mukk balaa lay don ci yow jenn tawat yàlla du la ko teg boo xëyee wax ko bu guddee bala ngaa tudd nga wax ko am na njariñ de sallallahu alayhi wa moo ko wax de ni ku koy wax de yàlla mën na laa musal ci balaa waxuma la mën na laa musal ci balaa waaye xoolal rek lu mel ni awuusu bi kalimaatillahi taammaati min sari maa xalax laa xawla wala quwwata illa billahil asiim dama ni sallallahu alayhi foo toog wax ko musiba du la fa fekk mukk loola naqari gàcca balaa du la fa fekk mukk wallahi bu fekkonte ni sax da ngaa dem foo xam ne dañ faa roof bu benn bomb ba tàkk bala ngaa ñëw mbaa nga génn ba dem mu doog a tàkk auzu bi kalimati llahi tammaati min sari ma xalaq la hawla wala quwwata illa billah ah xanaa sam reefoo na ci nit nag moom fu yàlla tudd ñu lay dee lu mu mën a waxi day dee rek waaye bu fa sam reefoo nukkut wallahi yàlla mën na laa musal kon nag ay antivirus a ngi noonu ci feebar bi ñu tuddee coronavirus ay antivirus a ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko jox na ko jullit ñëpp di jëfandikoo bismillahi lesi laa yadurru maa ismi sayun fil ardi wala fi sama wa huwa samiun alim bayiwul dara ak audu bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaq la hawla wala quwata dara ah rawatina nag ñu nga xam ni sëñ Tuuba liggéey na xasida yoo xam moom daf uwa jal bu la am na xasida yoo xam ne loolu dong ko tax a jóg hmm? puus loo ragal ba mu sori la ak ñoddi loo bëgg ba mu jege la am na xasida spécial yoo xam ne loolu rek tax sëñ Tuubaa def ko puus loo ragal ba dootoo ko gis ak ñoddi loo bëgg ba foo toll mu taxoo ak yow yal nañ yàlla musal ci tawat ji yal na ko yàlla soril yal na ko yàlla dàq ci war may gën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam jaamam boobu nga xam ne lu ko ci waay ñaan mu may la ko Seydina Adama day keroog ba mu defee aw jongolong mu wër ko ni munu caa génn lu mu wax rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al khasirin. min ko a ah, waaw ci ci daraje kan mu bi jahi muhammad ibn abdullah yalla ni ko baal la tuddu fi muhammad toppatuma la dara kon nak ñu ngi ñaan yalla ci daraje muhammad moomu ali salatu wasalam di jaarale ci sunu wasita muy si ahmadu bamba mu ngi koy ñaan mom sunu borom ci war may ñaari soppeem yooyu ñaari xaritam yooyu suñ borom musal ci tawat ji musal ci ki du jullit musal ci Sénégal waaye musal ci it doomi Sénégal yi ak mën a nekk waaye musal ci nag doomi Sénégal yi nga xam ne xaasatan dañoo am ak daara Ihya Ulumuddin alaaka ngir bëgg ko di ànd ak ñun ci liggéey bi waaye aba tey auditeurs yi nga xam ne ñooy ànd ñun ci jataay bi nga xam ne mooy Minhajul Abidin ilal janna dal nañ ko yàlla defal te may nu fan nu gudd may nu wér suñ gannaaw bakkan mu yóbbu nu àjjana wa ma saalik ala lay bi asis innaka ala kulli sin qadir xam naa suñ muudu kon foofu la ñuy yemale waxtaan wi bu fekkente ni amuñ ñu bëgg a participer bu fekkee ne am na bëgg a participer boo ma ko signalé ma toog xaar leen tuuti ah loolu mooy li nga xam ne moom lañ indi woon ci épidémie bi nga xam ne moo xew te arab yi di ko tuddee attaaxuun wala alwaba te mooy euh, mbas moo xam ne dafa dajale jamono te suñ borom nee na loolu duma de mukk di ko indi jamono li feeg jamono ngi am rek wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu wa naqsin min al amwal li feeg jamono ngi existé rek yu mel noon di am waaye nag saa bu amee rek ñu dellu ci suñu borom te ñaan ko ndax moom amuñu ku dul moom amuñu feneen amuñu leneen moom rek lañ am kon moom la ñuy ñaan ngir mu ngeen yaatu na gi ëpp na dayo kon nag ci lañ koy ñaan rek mu yemale ko fii mu yemale ko fii te nag ñu bañ a def li ñuy tuddee fanatisme fanatisme mënta ñàkk ci ab jullit waaye na tege ci xam-xam tege cim xel na tege ci xam-xam tege cim xel yonentu sallallahu alayhi wa ñu jàngal lu ñuy lor mukk te moom moo ni képp koo xam ne yàlla dogal na mu yëg ci boppam tawat na quarantaine boppam bu mu dem di ko wàllu nit ñi ak xew-xew bu mën a xew yow toogal ba toogal ba wér ah état wax na dëgg ak état waxut dëgg Moustapha Sam lijjantiwut loolu de Moustapha Sam daal lim xam mooy tawata ngi ñi ji raye rey nañu bari lii la ci alquran wax lii ci sunna su yonent bi wax lii la ci boroom xam-xam yi wax la ca des nag man yitteelu ma ndax wolof njaay da wax mi dana màtt ak du màtt mu ne am ni jox sa loxo rek boo ko defee mucc dana mat du mat mu ne bul jox sa loxo rek bul jox sa loxo état waxul dëgg ak état wax na dëgg man day intéressé wu ma ginnaaw dekk ndax bu leen fàtt ñuy mus yahood yi mën nañoo créer sax virus ndax ñoo ko créer créer ko ba tey loolu itteelu ma waaye xam naa ne mën nañ ko man xam naa loolu xam naa ne mën nañoo créer virus pour faagaagal menn mbir loolu xam naa ko waaye ak lu mën a xew lu mën a xew mooy jullit bi moom li ko yàlla sant mooy saa boo jéggee ab xibaar lu mutu ko ba ndax xabaar bi wir na wala wirut loolu la ko yàlla sant subhanahu wa taala in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayanu loolu jullit am na ci droit waaye nag ci jamono bi ngay wër ndax xibaar bi wir na ak ay ca xibaar biñ la jox masalan da ni la buntu barab sànga am na ku la fay tëru ngir rey la d'accord ngay bëgg a gëstu est dëgg la wala dëgg na fekk na nga préparé sa bopp de waral ngànnaay doog a lijjanti ba xam ndax ki bëgg a rey dëgg la wala du dëgg waaye nag boo nee damay dem rek ba mu rey ma ba xam ay ca boo bu la reyee nga perte rek bu la reyee da loolu rek leneen waaw loolu rek leneen man nag damaa mun waxi par parloo waxi taxaw sut baa ko munut man waxi par parloo xaw ma ko munu ma ko te it yàlla bu ma ko yàlla nattoo man dal li ma xam moy wax deug te yalla tax te sukkandiko ci alquran ak sunna faqat faqat leneen interesse wuma bu dee état xawma sax ko ca bokk faf concerne wu ma interesse wuma bu dee ab sëriñ ñoom ñoy suñu sëriñ di suñu xarit di suñu wëlër ñu bëgg leen lool waye liñ leen di bëgg-bëgg nak su wax li yalla ak yonent jotté ñu wax ko te yalla rek tax rabbi ci tuwa jalla lool dal sëñ Modou moo doonoon mbir mi ko defé ñoo ngi jéggulu ñëpp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp ñoo ngi jéggulu ñëpp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di leen wax ni lu ci dëng man ni ko doon wax rek mata matadi waaye lu ci jup suñu borom la rabbi jalla jalaluhu wax suñu bon ni ko ya rab ahma atina fi dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina asabana suñu daam ko tabbi waaw waaw kay bisimilah mbokk mi waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Cheikh Moustapha Al Karim. waaw. Ba Penda Ndiaye. ah waa kay sëñ bi Ndiaye. Ndiaye Ndiaye maa jàmm rek kay. ñu ngi sant yàlla baax mbay. baraka alhamdulilah. ñu ngi leen di ziare baax. naanu ko saalik alhamdulilah. di ziare sëñ Modou Mbaye Thiam ak mboolem ñu nekk ci rajo bi ñëpp rek. wallaay ndeysaan alhamdulilah di am mbégte baax ñu leen doon topp ci waxtaan yi tabarkàlla ndax yàlla bool lii wa ndeysaan di ñaan rek yal na yàlla yàkku wér gi kàttan bi amiin te yàlla boole na ko di ko ñaanal mboolem jullit yëpp rek amiin yaa rabbi amiin amiin di di jël ci ñaan yi suñ mën taxaa suñ borom yàggal ko fi lool ci wéral ko amiin yaa rabbal aalamiin ñu yegg ci gannaawam jël koy ndigalam ci bàttab Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu amiin yaa rabbi ñoo ngi jégalu baax ci eh, déggee dégg de. <laughs> wallaay ndeysaan it yi daa bëri xam nañ ko bu baax kay Ndiaye waaw it yi. Eh, ñu ngi sant yàlla bu baax waaye fu toll ñu ngi leen di bàyyi xel. alhamdulilah ndax yàlla. ñoo ngi rafetlu bu baax nangu yàlla yàlla nangu ñaan yëpp rek. ñun yaa rabbi te yàlla booy nii wër. ñu ngi lay seen xadim. radiyallahu ñu ngi ziare njaboot bi ñëpp di ziare donte yi ñëpp rek. ñu ngi di wutu kay di la fay incha allah rek. di am mbégte baax baax wax dëgg yàlla. tabaarkalla alhamdulilah. di lay ñaan rek si borom gën laa dëgëral gën laa kàttanal bi jaay Cheikh Khadim. ñun amin radiyallahu anhu ñun te boole ñuy waa. di ko ñaanal mboolem guddi hmm, gi. sant bu baax waxtaan yi wax dëgg yàlla. ñu ngi ciy bàyyi xel baax baax di ci gën a soññeeku baax a baax wax dëgg. baraka alhamdulilah. ñu ñaan rek yal na yàlla gën a kàttanal. amiin te yàlla boole na ko. di ko ñaanal it ñu nekk ci rajo bi ñëpp rek wax dëgg yàlla ndax moom njariñ bi daal am na solo lool wax dëgg yàlla ci ñu ñuy xet lu baax a baax. tubaarkàlla ndax yàlla wallaay ndeysaan. ndax jotaay yu mel nii moom buñ ko amul rek dem daf ñu yóbbu ci yeneen. it na mooy li ñu amal solo mooy li muy mooy suuxat suñu wax dëgg yàlla. barakallah alhamdulilah. moom dañ di ñaanal rek suñu borom gën leen a kàttanal yéen ñëpp ci yëngatu yëpp rek. ñun ci yàlla boole na ko waaw. suñu kikaay bi nga xam ne suñu borom baax na ko suñu borom aar ko sàmm ko. amiin amiin amiin yaa rabbi waaw. jaay Cheikh Khadim. xam naa dañ na woon nan dugg ziar rek yóbbu ñu bàyyi kon ñeneen ñu bëgg a yooyu. ba baarakallah sama borom bindal la yiw waaye bu ngeen ñu déggut bu ngeen bu ngeen déggee bu ngeen déggut lépp daal moom ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal bu baax a baax wallaay ndeysaan xam nañ ko baax kay Njaay waaw waaw ah. baarakallah Njaay jërëjëf jërëjëf Mbaye baarakallah fii quoi ziyaare fi ñoon Mbaye bu baax ak sëñ Ibrahima Njaay wallaay ndeysaan ñu ngi lay dégg incha allah wala ñëpp ñu jàpp ci rajo bi ñëpp rek sëñ Abdoulaye Diop dara incha allah ndeysaan yëpp rek bàyyiwul kenn wax dëgg yàlla. tubaarkaal la jërëjëf sant bu baax a baax. alhamdulilah jërëjëf yàlla man lu ñaan yi rek kenn noo dëgëral ci islam. rabbal alamin waaw. taala amin. jërëjëf Mbaye. ak Ndiaye jërëjëf jisaakallahu xëy na say. jërëjëf Serigne Mapenda Ndiaye Alhaji Mapenda vraiment ñu koy ñaanal yàlla suñu borom sàmm ko sàmmal ko njabootam loo xam ne mbokk bu baax loo xam ne bii ñu nekk Arya Ulum diin njabootam a ngi fi waaye ànd ak loolu dugal na ci loxoom kon nag ñu ngi ko ci gërëm baax di ko ci sant di ko ndokkeel ñaan suñu borom sàmm ko kenn ku bëgg a participer mën nga def ni sëñ ma penda def te mooy woote eh, ci Sky bu rajo bi su ko defee incha allah sëñ mu dana la dugal incha allah rabbi ñu ngi gërëm bu baax sëñ ma penda te di ko ñaanal yàlla sama borom ñoom it aar leen foofe ñu nekk aaral ko njaboot gam fa nekk ñëpp yàlla musal leen ci dég-dég boobu incha allah bu fekkee nañ ko bëgg a participer rek moom day jaar foofu nga xam ne fi la alhaaji ma pende jaar léegi te mooy ci skype bu xasidu online bi soo ci wootee rek incha allah suñ mu dañ la dugal nga joxe sa participation ci mawdu bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mooy attaaxuun muy coronavirus bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane li nga xam ne moom la ci alquran wax sunna wax ko ci eh, alayhi salaatu wasalaam eh, di xam le rek ni ñu ngi ndokkeel mboolem mi nekk ci diaspora bi yëpp noonu ko waxe yàlla mi nga xam dara ump ko xam na ni keroog bi ñuy jàng xasida yi ak alquran ji ñoom ñëpp lim nañ leen ñoom yàlla aar leen sàmm leen suñ borom musal leen ci loolu ñu di ko déggandeem rek ba sama borom jele ko fi inshallah allah te fi yalla gaaw jele borom man nako def bi du ko dara yalla nako fi jele ha ah, yalla na jël bëtam ba xoole ko donga daara yi ngir fare ko bakkaaru mag ñi tax muy wacc mugalam ngir ñu delu ci ndax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith da sa neena sun borom leg leg mu tok ba yag du bëgg lu ray mag ñepp rek ray mag ñepp bañ jeex waye neena te neen ko bëgg moy tukkal bi mun waaye nee na bu nee xifeet yem ci donga daara yi rek ni malaaka mi fomm ko ba beneen yoon rek waaw ah, loolu ku dem ci sara risaala da ko ca gis incha allah mhm. hadis la boo xam ne ku dem ci sara risaala na ca muy képp koo xam ni mu ni sallallahu mu jël wax malaaka mi ni mbugalal ñu waa jamono waaye nee na bu nee xifeet yem ci donga daara yi rek ni ko bàyyi ko rus naa donga daara yi ah, rus naa donga daara yi kon nag suñu borom ñu lay ñaan nga ruse ñu donga daara yi ndax ñun moom ci tooñ la lañ dëkk ci bakkaar lañ dëkk ci njuumte lañ dëkk hmm. ndax réew moo xam ni ñu am doole ñooy noggatu ñu amul doole waaw ñu am doole ñooy noggatu ñu amul doole di war ci seen kaw rek di làbbali rek waaw ma ngi fàttaliku ndeysaan mbokk moo xam ni euh, jote woon nañ jote woon nañ ndeysaan mu dem ci sama benn xarit ñu ko waxal Moustapha Mbaye Sam ñu ko am na bara lon moom yaakaar na yi lum lum lum ñàkk maa ko xañ ndax la la la la la baayam yoroon te yàlla rafaatale ñu ko ma ne ko nee ko moog bara loom laay boole tey ci lu bon de te kenn du ko faj waaw alaaji Mbay Njaay xam ngeen ko bu njare waqe bi ma dogee xaatim bi moo téye sama loxo ni lii àddina jëru ko day bañ ko la dégg mu am ñëpp daañu la dégg waaw waaye waaye waaye xaatim boobu ku ko ku ko ku ko jël dugal ci sable boole ci bàmmeel kon nga ni fekk na ko bu yàgg ma nga armé li Louga waaye bi ma demee ba gën a am maturité nak laa xam ni ndekete dëgg dëgg li sama maam waxoon ni jëru ko dëgg la maam may li ma waxoon ni jëru ko dëgg la fi moom loolu la may yekk waaye dama ko bàyyi rek ngir yàlla léeg ñu indil ma ay waxam aristoloque indil ma waaye ma ne bàyyi rek yàlla mi dogal dogal na ko ba noppi Hmm. réew muy doxé tekat tekat te kat té kat euh, euh, procureur bi lu tax mu nangul ko lolu moy parce que promotion la promotion rek xolal ma li rek nit ko xamni yow dossier deug waye waaye diw sama promotion la rek kon na dem làqatu ci mom duma ma samba yow waye ndaw samba ndaw yomb réew muy doxé ni ba ñi nak nañ nek ci sun óola laa di am rek kenn musu ko dégg adduna buy doxe noonu injustice te yalla injustice le gëna bañ rabisitu wa jàll nga nekk ci bu lépp yaakaar da ngay ne ci ku la ko wax nax na la man maa ko wax ku la wax nax na la waaw wax nax na xam naa suñ daal ñu tàggoo naa nag am mbokk yu doon woote ci eh, sama téléphone am na mbokk yu doon woote ci sama téléphone fekk mën na ci waxtaan wi defe naa ñenn sax foofu lañ di wootee bitim réew damaa fayoon téléphone bi nekk ci waxtaan wi ko defee kon ñoo ñëpp nañ ma jéggal rek ba ma noppi ci allah nañ may jéggal rek eh, incha allah rabbi bu bu noppee rek ku ci woote dinaa la jël incha allah ko defee ñun ñu jéggal ma rek hmm, naa sax foofu la ñuy tàggoo defe naa sëñ Muudu incha allah hmm. moom saa ma nekkee ci rajo bi di wax day fekk ma fay portable bi en général léegi bu ma ko taalee nii rek laa gis message yi ak appel absent yi su ko defee kon nu ma ko faral di waxee Skype ba moom dafa am problème euh, nu mu wutulee ubbiku waaye képp ku woote ci cent six 77 615 36 07 incha allahu rabbi ah boo ci wootee rek euh, benn nga jot ma mbaa nga jot ki sës ci man rek 615 36 07 boobu wax ngeen di. woote mbokk yi nag danañ may balaa mi toujours na am wutal whatsapp whatsapp waaye daal hmm, xam naa su dem duma ko may gaa yi moom la yàlla xam doy na soo waxee kon xam na sëñ Moodu ñu ndokkeel la ndokkeel njaboot gi eh, ñu ngi lay ñaanal yàlla suñ borom aar la ci xew-xew boobu waaye aar ci sa njaboot te nangul la say jëf barkeelal la ko ci effort yi ngay def ci serveur bi pour jullit ñi jariñoo ko euh, appel bu ne danaa ko jot Maroc Arabie Saoudi fu nekk nit dana ma foo waaye di rafetlu waxtaan wi ak di ko topp ci ni ngi koy arrestre bu noppi dugalaat ko ci internet bi am na ñoo xam ni foofa lañ koy toppee ñoom foofu sax fi lañ xamee ni ndeke rajo bi mu ngi fonctionné noonu nga koy enregistré bu noppi dugalaat ko ci YouTube bi ñu bare bare foofu lañ koy toppee euh, dëgg-dëgg di ko rafetlu waaye nag yàlla nañu yàlla boole yiwu ñu ñëpp rek incha allah ñu ngi nuyu tamit sëñ Moustapha Thiam foofu ci Amérique rek sëñ Modou Mbaye Thiam la ñu ngi nuyu nañ ko di ko ndokkeel ak mboolem ñu nekk Amérique ñëpp mboolem diaspora bi ñëpp rek incha allah di wax suñu borom ni ko allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba naar rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada

الجهاد هداني الله هداية التي أجاء من ربي ملتي